wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar amma baad fa haadihi kalimatun bi unwaan altasfiya xaqiqatuha wa musawiraatuha wa majaalaatuha أتحف بها إخواني في هذه المناسبة الكريمة لعل الله أن ينفعني بها وإياهم مرتبا فقراتها حسب تسلسل عناصر الموضوع مستعينا بالله سبحانه وتعالى mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi sant sun borom tabaraka wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu barkeel jataay bi Euh, jariñ nu ci liñ fi wax lu ci doon ay njariñ lu ci doon ay njuum te it mu jéggal nu ko liñ am ci waxtu bariwut lool ndax yeneen itte yoo xam ne dañ ko war a doxi euh, li gën a sori ci fun mën a yem ci waxtu mooy bu benn waxtu jotee moo taxoon ñu bëggoon rek waxtu wi ñu waxoon su jotee ñu daldi mën a tàmbali waaye ginnaaw yàlla dafa dogal am ay sew-sewaan yu amoon tuuti ci wàllu organisation bi yu xaw a yeex moo taxoon mbokk mi yëgal ma ne ma danañ avancé tuuti kon danañ jéem a gàttal suñ kem kàttan liñ bind lépp buñ ko mënta waxit ñi jukki liñ jàpp ne dana jariñ ñu wax ko waxtaan wi ci lim jëm moo di ni ko mbokk mi waxee léegi at tasfiya tasfiya moomu nag lan bëgg a xam xaqiqatuha lan mooy moom luy dëgg-dëggam wa musawiraatuha ak lu tax ñu di ko def wa majalaatuha ak lan mooy li aajawoo ñu defal ko tasfiya boobu tasfiya nag buñ ko waxee su fekkee dañ ko bëgg a firi rekk ci baat bu tolloog baatu wolof mooy segg ni ko mbokk mi waxe segg buñ koy wax mooy ay yëf yoo xam ne dafa jaxasoo am lu ca nekk te bokku ca ñi bëgg la ca bokk des fa la ca bokkul dem waaye bala ñoo sori ci jéem a xam tasfiya dëgg-dëgg mooy lan maanaam xaqiqatuha kon ci tomb bu njëkk bi lan tàmbalee war caa teg tomb ñaareel ba su jeexee muy lan moo tax ñuy tasfiya war caa tomb ñetteel ba mooy yan yëf ci biir lislaam moo aajowoo tasfiya waaye bala ñoo sori ci xam dëgg-dëgg tasfiya mooy lan jaadu na nu laaj suñ bopp lenn ci ay laaj ngir nu dellusiwaat xam fan lan toll ci diine ji nun laaj bu jëkk bi mooy hal balaga min fiqhina an na'lama anna ad-din al-islami huwa al maqbulu inda allahi taala ndax àgg nañ ci suñu xam-xam lum gàtt-gàtt nu xam ne diine lislaam ji mooy diine ji borom bi tabaraka wa taala nangu waaye nanguwul jeneen ab laaj la buñ fàtte ne borom bi tabaraka wa taala nee na wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min alxaasirin ku sàkku jenn diine ju dul diine lislaam lislaam nag bu ñu ko waxee mooy diine tawxiid nee na duñ ko ko nangul te bu ëllëgee itam dafay perte kooku mooy laaj bu njëkk bi laaju ñaareel bi hal balaga min fiqhina an naclama anna addiina huwa ma jaa an annabiyi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam min waxyi alkitaabi wa sunna ndax xam nañ ne diine buñ ko waxee mooy li jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo xam alquran la wala sunna la kenn ku ne laaj boobu ci sa xol mën nga koo tontul sa bopp ndax am nga yëg-yëgu ne diine mooy loolu wala ba tey yaa ngi dese ne lu lay wax ne diine mën naa jóge feneen fu dul foofu ñetteelu laaj bi hal naxnu mustaiduuna li muraajaati aqaaidina wa cibaadatina wa sulukiyatina wa caadatina wa taqaalidina wa ardiha ala kitaabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li macrifati xukmiha min xaytu al axdi wa radd ndax ndax nun waajal nan sun bopp ngir gaaral sunuy pas-pas ak sunuy jaamu yàlla ak sunuy jikko ak sunuy aada ak sunuy cosaan ndax yooyu yépp waajal nan sun bopp ngir gaaral ko ci alquran ak sunna lun ci gis alquran ak sunna nangu ko nu jàpp ca loola luñ ci gis ne ah lii kat alquran ak sunna nanguwu ko nu sànni loola ndax waajal na suñ bopp waaj mu tol noonu kooku benn laaj benn laaj la ci biir njiit laay li beneen laaj mooy hal naxnu mustaiduuna li qabuli kulli ma yasbutu an annabii sal allahu alayhi wa wa sallam min taalim ndax ba tey waajal na sun bopp ba lépp loo xam ne sax na ci diine lislaam ne lii ci yonent bi la jóge moo xam alquran la wala sunna ci yonent bi la jaare nu nangu loola laaj beneen bi ci des mooy hal balaga min imaanina an nuqlia an kulli ma huwa mulsaqun bi hada ad din xatta wa in kaana man alsaqahu bihi min aqrabi nnaasi ilayna ka abaina wa ajdaadina wa mashaayixina wa ulamaina ndax waajal nan suñ bopp waaj goo xam ne pare nan pour bàyyi lépp loo xam ne dem nan ba xam ne dañ ko boole ci diine ji te bokku ci donte sax ka ko ca tàbbal si dafa bokk ci ñi nu jege lool mel ne sunuy baay wala sunuy maam wala sunuy sëriñ wala ñu nuy tudde sax sunu boroomi xam-xam ndax dem nan ba am yëg-yëgu ne lépp luñ yëg dañ koo dugal ci diine ji te bokku ci pare nan pour loola nu bàyyi ko baada dalika kulli hal naxnu mustai mustaciduuna liltaxyir litaxriri maa yanbuduhu alkitaabu walsunna wa yatanaafa maa muqtadayaati aliqtidaai bi sayidi almursalin sal allahu alayhi wa alihi wa sallam wa in sauba taxyir gannaaw loolu lépp ndax waajal nan suñ bopp ngir changer soppiku soppiku goo xam ne dañuy soppi lépp loo xam ne alquran ak sunna nanguwu ko lépp loo xam ne dana wuuteeg roy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax laaj yooyu xool nan bu baax a baax kenn ku ci ne ban tontu nga ci war a tontu su fekkee ne nit ki am na yëg-yëgu ne yooyu ñu wax yépp lam cay tontu mooy uhu kay man de jekk naa pour yooyu kooku ma ne su dégloo wàllu tasfiya dana ca mën a jariñu su ci amee nag benn boo xam ne day wax ne déglu naa ko noonu waaye jàpp naa ne euh, mënaguma ko kooku dana laaj mu waajal boppam tekkiwul nag ne képp koo xam ne déglu na wax ji rekk danga nga daal di war a xëy soppi ko fi saasi waaye amal yéene ji amal yéene ji ne fas naa yéene lépp loo xam ne diine la tudd te saxul ci téere téereb yàlla bi wala sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa loolu danaa jiima def pour bàyyi tuu pour bàyyi ko du lu yomb nag ndax nit ki lim tàmm mu doon pas-pasam wala mu doon aadaam ak cosaanam bam mu làggi ci ay cëram làggi ci am xelam bàyyi ko lu jafe la bàyyi ko lu jafe la kenn ku nekk xam na ne soppi mooy li gën a jafe ci mbir yi rawatina li nit ki dem ba tàmm ko dañuy wax ne benn basketkat bu siiw ci wàllu basket yéen ñëpp ngeen xam ko wala lu bari ci yéen ab américain la dafa dem bay defar ñi di ko defloo benn publicité boo xam ne niñ tërale scénario publicité bi mooy dafa war a sànni bal bi juum su juumee naan li muy naan bu sànniwaatee mu door a dugg biñ ñëwee di ko filmer fi mu doon sànnee bal bi pour juum sànni na ñaar fukki yoon ak juróom pour bëgg a juum mu tëggu ci ñaar fukkeelu yoon bi ak juróom benn ci la bal bi door a juume ñi door a am liñ doon wut loolu lu ko waral tàmm soppi aada ak soppi man-man ak soppi cosaan noonu la jafe ci nit ki waaye ne ginnaaw yéene jàngi fi nga fas yéene mu soppiku ngay def bis bu ne nga seqi benn jéego ngir won gannaaw la nga tàmmoon te baaxul dox jëm ci li nga xam ne moom nga bëgg a tàmm tam baax yéene jooju ginnaaw mi ngi fi ak effort boobu sooy boo rafet njort ci ne bis du jege ngi ñëw tawféexi borom bi tabaraka wa taala may la nga soppi la nga nekkoon te du noona dem ca la baax kon su fekkee ne loolu leer na nan xam ne tasfiya buñ ko waxee ci kàllaam ak arab moo di at tanqiyatu wa tathir mooy laabal laabal raxas segg tur woo ci jox baax na bu dee ci istilaaxu boroom xam-xam yi nag moo di tanqiyatu diini l islaami aqidatan wa lislaam ji nga xam ne diine yàlla la maami kenn moomu bàyyi kenn moomu ko diini sunu borom tabaraka wa taala tànn ab yonent wàcce ko ci moom fexe ba segg ko ci la ca al aju ci pas-pas wala ca jaamu yàlla ya walla ca jikko ya segg ko bam set wecc ba lu ca bukkul bañ caa nekkati loolu lañuy ñuy tudde at tasfiya te nag bul fàtte ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam liggéeyam bu rëy bi nga xam ne moom la tàmbalee bi ko yàlla yónnee mooy segg pas-pas yi nit ñi façon te baaxut moo tax borom bi ne huwa alladi baasa fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin mooy kii yónni ab yonent ci nit ñoo xam ne xamuñu woon dara nekkuñu woon ci njub ngir mu sellal leen laabal googu mu leen doon laabal di raxas pas-pas yu yàqu ya muy jaamu ga xërëm yaag aju ga ci àdduna ba defe ne lépp fii la ak mbon ga ca tegu mbon ga tegu ca pas-pas yu yàq ya yàqu ya ñëw googee mu doon ñëw di ko raxas di fa wuutal alquran ak sunna muy lim tudde alkitaaba wal xikma loolu moo doon itte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon kooku mooy umdatu tasfiya aaya boobu ak yu demee ne moom kon xamal ne bépp jaamu yàlla boo xam ne sharia indi na ko bépp jaamu yàlla wala bépp ndigal bu baax boo xam ne dañ lay wax defal nangam moo xam julli la moo xam koor la moo xam asaka la wala dañ lay wax bàyyil nangam ndax loola fekk dafa doon loo xam ne lu baaxut la xamal ne yooyu yépp ay opération la yoo xam ne lañ ci jublu mooy raxas la nga set tegu ci siraatul mustaqim mucc ci lépp loo xam ne dafay dox sa diggante ak njub su ko defee loola la muy tudd mooy tasfiya kon jaamu yàlla yépp ay jumtuwaay la yoo xam ne dañ koy jëfandikoo ngir sellal nit ki ak defar ko kooku mooy xaqiqatu tasfiya kon tomb ñaareel bi mooy musawigaatu ak tasfiya maanaam lan moo tax nag kon ñu war a jóg defi tasfiya boobu mboolem boroom xam-xami jullit yi tey ak seeni gëstukat dëppoo nañ ci ne lii gaar jullit yi ci ak doyadi akuk suufe akuk toroxlu ci seen karami noon li ko waral lenn rekk la muy bu'duhum an xaqiqatil islaam sori giñ sori dëgg-dëggi lislaam mooy lan loolu nag boo ko seetloo day dellu ci ñetti mbir mbir yu bari la sax waaye ñett yi ñoo ci gën a fés bi ci jëkk moo di iltibaasu maa laysa min addiini bima huwa minhu lu bokkul ci diine ñëw jaxasoo ci biir diine salteel ko loolu lu am la ñaareel ba moo di daful yaqiini bima huwa min addiin li ñu tudde yaqiin muy kóolute wóolu diine ji wóolu gu wér ci xoli jullit yi ak ci seeni pas-pas dafa am ak des li yàlla diggee ne nii la bu fekkee ne dañoo ñëw jaxase koog yeneen ba diine ji xàmmeetuñ lu ci bokk lu ci bokkul la cay tegu faw mooy eh, kóolute gi duutu am ndax lañ ne woon diine ji moom lay faj dangay gis du ko faj su borom bi tabaraka wa ngir jox la ci misaal su ne inna alsalaata tanha an alfaxshaai walmunkar julli day dox diggante jullit bi ak def lu bon jullit bi julli day dox diggante jullit bi ak def lu bon nga ñëw julli ma ñuy wax ndax inna salaata la wax maanaam alif ak laam boobu dañuy wax ne lil ahd mooy julli ga julli gañuy wax gu mu doon mooy gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi woon soo ñëwee fexe ba julli gi nga jaxase koog lu ca bokkul am sa yëfi bopp ci biir julli gi yoo xam ne yaa ko sos yaa ko ci indi am yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi woon nga wàññi ko wala nga soppi ko ndax julli googu dana continuer di jariñ la mu doon jariñ su ko defee ginnaaw gis nga ay nit di julli ba noppi di def lu bon kooku lam lay juril kon mooy daaful yaqin day dem ba mu yàgg nit ki day sikki sàkk ah julli kët dañ ne woon su ko nit ki defee dana def lu baax te man maa ngi gis ñii ñu ngi julli ba noppi di naan sàngara ñu ngi julli ba noppi di njaaloo ñi ngi julli ba noppi di def nangam ak nangam ak nangam su ko defee daaful yaqin lay jural nit ki ci diini ji kooku misaal rek la ci maanaam docteur bi lay joxoon garab ne la jëlal garab gii sa feebar bi lay faj waaye bis bu nekk jëlal benn doom ci waxtu sàngam nga ñëw soppi loolu soppi waxtu wa ba noppi di def saa bu jotee nga jël ñaari doom wala ñett jekki ba mu yàgg nga xool gis feebar bi continuer nekk fi nga wëlbatiku di sikki sàkk ci garab gi ndax mën naa fajam déet fekk ndekete yow ni nga ko doon jëfandikoo moo dul noona waaye garab gi moom lam mën man na ko kon loolu moo tax ñaari mbir yooyu ñoo jokkaloo iltibaasu maa laysa min ad diini bi maa huwa minhu la cay tegu rek mooy daaful yaqiini bi maa huwa min ad diin ñetteelu tomb ba moo di at taqsiru al amali bi ahkaami diin càggante ci jëfe diine moo ci daal di tegu ñetti mbir yooyu yépp bu ci ne dafa gaar lu bari ci jullit yi du duñ généraliser nag wax ne ñépp ndax loolu du waxin waaye lu bari ci jullit yi daf leen a gaar dañuy dem ba ñi am it sax ci diine bal di góor góorlu sax nag ci sunna nga xam ne seytaane day bëri ñoom ci wet gu nekk léeg-léeg wet gu ne daan leen fa dana ko jafe waaye wetu jëfe dana fexe ba daan fa ñu bari da nga gis lu bari ci ndaw ñi jóg di gëstu xam-xam di gëstu sunna dañuy nangoo sonn lool lu masala sew-sew jaral na leen jël seen téléphone téléphoné fay xaalis laaj ngir xam loolu kon kooku wax dëgg yàlla bëgg naa xam waaye am lu bare bari loo xam da nga koy xam ba garde ko mu doon xam-xam waxtu jëfe jot nga romb ko bañ koo jëfe boo laajoon ci jullit yi tey ñi xam ne julli guddi baax na lim bu rëy rëy rëy waaye lim bi jekki ba fajar di bëgg a jot luy tolloog nangami minit ñi jóg jiitu fajar julli ay rakka balaa fajara jot lim boobu ña xam ne baax na moo gën a bari ñi koy defe noonu kon gàttañ lu ci wàllu jëf am na kon mën nañoo jàpp ne bokk na ci sas yu rëy yoo xam ne moo tege ci loosu ñi jóg ngir bëgg defaraat ngir bëgg a wootewaat ngir bëgg a yëgal jullit yi ne nan dellu ci suñ diine ñu yëg ne kon ndekete li ñuy tudde ak tasfiya muy seggaat sun pas-pas yeeg sun aada yeeg sun cosaan yeeg sun dundaan weeg sun dundiin weeg ni ñu jaamoo yàlla ñu yëg ne loolu ndeke jot na ko loolu nag ñaari étape la am muy musawiqaat yi yi nga xam ne ñoo war a tax nu jóg ngir seggaat benn bi moo di benn boo xam ne bu yaatu moo di taxqiqu alubudiyati alkaamila lillahi subhanahu wa taala fi alxayaati ala mustawa alfardi waljamaa jubluwaay boobu la am moo di fexe ba borom bi tabaraka wa taala ci kaw suuf jullit yépp ànd yëg ne moom dong mooy yàlla te moom dong moo yeyoo ñi jaamu ko keneen ku dul moom ku ndaxam ab jaam nga boo xam ne dañuy séentu ci yow nga jaamu yàlla ak ragal ko ak toroxlu ci kanamam suñ demee ba yëg-yëg boobu dund ci biir jullit yi ñi ànd di ko def kon kooku objectif bu mag a mag a mag am na réalisé nañ ko borom bi tabaraka wa taala ne wa maa xalaqtu l jinna wal insa illa li yabudun nit ak jinne binduma leen lu dul ñu jaamu huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa diini alxaqi liyudhirahu ala diini kulli walaw kariha almushrikuun borom bi tabaraka wa taala moo yónni ab yonentam ci njub ak diini ji nga xam ne mooy dëgg lu tax li yudhirahu ala diini kullihi ngir diine jooju feeñ tiim mboolem lépp loo xam ne lu ñuy tudde diine la donte loolu dana naqari yéefar yeeg bokkaalekat yi na leen naqari waaye loolu moo tax diine ji jub kon objectif bu mag boobu muy li yudhirahu ala diini kullihi kooku moo tax tasfiya jaadu loolu nag ngir ñu mën caa àgg am nay musawiraat yu nekk ci suuf muy ay sabab ak i bit yu ndaw ay objectif yu ndaw yoo xam ne ca la mën a jaare ngir amal loolu ba ca jëkk moo di tasxiixu ma taraa ala alxayaati alislaamiyati min alshirki walbidaati walinxiraaf réparer defaraat li nga xam ne tàbbi na ci dundu jullit yi ci bokkaale ndax xam nga diine lislaam tawxid moo ko taxoon a jóg muy wéetal yàlla jaamu ko moom dong bañ ko boole keneen suñ demee nag ba ab jullit fas ne mën naa jaamu yàlla man cee mosal keneen kooko ajana réparé mu delsi wal bidaa jaamu yàlla yi dafa leer nañ alquran leeral ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp daf koo jàngale bàyyiwul dara ba ci nit ki sax buy dem ca toilette ba ca wana wa nu mu cay demee dañ ko ko jàngal ay tegginam ki jàngale loolu bàyyiwul leneen diine joo xam ne noonu la leere kon suñ demee ba mu yàgg ñu dugal ci yeneen yoo xam ne ay jaamu yàlla lañ ko tuddee ay nit di ko jëfe te bu yonente bi alayhi salaatu wasalaam delsi woon tey moo ki saxaabaam ak ñam yaroon jàngal leen ñu fekk nit ñi di ko def dañ naan ñii li ñuy def lu mu doon kon nga xam ne loolu bokkul ci diine ji lu aaja seggaat la nekk noonu jeng ki nga xam ne moo tàbbi ci xel yi ak xalaat yi ak doxin wi ñaareelu tomb bi moo di tajdiidu amri diin fi waaqici hadihi al umma wa irjaacuha ila xaqiqati al islaami saafiya jamono ju nekk doomu aadama dafay aaje beesalaat nekk ci dara ba mu yàgg même li nga nekk di ca dox bu yàggee laaj na fedd ñi fàttali la yëgalaat la li nga nekk lu mu doon fàttaliku lan la lay jariñ fàttaliku jàpp ci ak bàyyi ko bàyyi gil jan lor la am ak jàpp ji ban njariñ la am kooku jullit bi fu mu toll fa ne da koy aajowoo te tasfiya ci li indi loolu ci la bokk ñetteel ba moo di binaa al xayaati al ijtimaaciyati wa axlaaq wal mucaamalaat ala al usul tabax dund gi nga xam ne mooy dund askan wi li ñu naan vie sociale dund gi nga xam ne moom la société bi di dund ci wàllu jikko ci wàllu jëflente ñu fexe ba teg ko ci doxaliin yi nga xam ne asalafu saalix mi mag ñu baax ña fi nekkoon yonent bi yar leen ak saxaaba ya nañ doon doxale seen i jëflante nu fexe ba defar ko ba mën koo teg ca fondation yi nga xam ne ci lañ ko tegoon ñoom ñeenteel bi moo di idaadu qaidatin min al jiil saaid taxmilu amaanat daawati wal islaax faw ci biir tasfiya muy seggaat googu war naa am ay ndaw yu jóg yu jàng xam seen diine mën a yor sas responsabilité bu mag bi nga xam ne lislaam moo ko teg ci seeni loos ci kaw ñu baaxal maanaam jubbanti ak jàngale ak yar ak tasaare diine lu mel noonu munta ñàkk jamono yoo xam ne dem nañ ba ndaw ñi amatuñ ñu taxaw jublu fànn googu di jàngale diine ak di ko jàng di ko xam di ko tasaare bu ne bu boobaa njàqare war naa dugg ci biir xeet bi loolu mooy yi nga xam ne moo tax waree sa jógaat seggaat diine ji xoolaat ko bu baax xool doxin wi su ko defee nag tomb bi ci tegu mu di majaalaatu tasfiya yan mbir yan mbir moo aajowoo ñu tasfiya ko ci biir lislaam ma ne ba ca njëkk suñuy segg lin war a jëkk segg xool ba xam noo nga ca tegu ci yoon walla déet moo di wàllu pas-pas kooku mooy bi ci njëkk majaalul aqida kenn ku ne xam na ne al aqida al islaamia muy tawxid alquran ak sunna daf cee fees dell yonente bi salallahu alayhi wa sallam biñ ko yónnee mu ñëw xam na ne lépp lu ñuy digal jullit yi wala ñu leen koy tere du mën a sotti lu féeg wéraluñ seeni pas-pas ba noppi seeni pas-pas ci yàlla ñu yëg ne moom yàlla moom des ko war a wéetal waree suta jaamu leneen waree suta jaamu keneen bu noppee na door a xam ne nii lañ koy jaamoo loolu moo tax bi mu dikkee tàmbalewut ci jàngal nit ñi ay jikko yu rafet wala mu di leen jàngal nu ñuy daawaa wala mu di leen jàngal nu ñuy jëflante walla mu di leen jàngal njaay ak njënd fan la tàmbaleeg ñoom mooy wax leen laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah te loolu wér ci seenu dund kon fukki at yi nga xam ne def na ko màkk yépp du koor lañ farataal ci ñoom du jihaat lañ farataal ci ñoom naanum sàngara sax néewuñu leen bàyyi leen ko liñ nekk ak ñoom mooy na pas-pas yi wér ci wàllu yàlla lu tax mooy xam nañ ne su wéree lépp yomb gannaaw bi waaye su wérul dara du baax loolu mooy pas-pas bi nga xam ne lislaam moom la indi mooy jàngale borom bi tabaraka wa ñi xam ko xamin woo xam ne wu sell la ci niñ ko indee ci alquran ak sunna waaye bu fekkee xool nañ li jullit yi di dund tey danañ gis ne lu bari ci nit ñi yoon woowu yonent bi alayhi salaatu wasalaam xalloon saxaaba yi jaar ci ahlul xadiis jaar ci gannaaw saxaaba yi lu bari ci nit ñi jàdd nañ ko boo xoolee ci li gën a fés ci aaye alquran ak ci sunna muy sifaati borom bi tabaraka wa taala ay melokaanam tam doon bunt bu am solo ci bunti tawxid lu bari ci nit ñi jàdd nañ ko su borom bi tabaraka wa taala melalee boppam ci wenn melokaan ñu soppi melokaan woowu dem sax bay teg ay xawaayid ci xawaayid yi soppi nan lañuy ñuy interpréter sifaat yi ba tudde ko neneen nu bokkut ak li yàlla wax dem ba ku ñuy wax allaqaani ci téeréem bu siiw fii ñu koy wax jawharatu tawxid mu naan wa kullu aw awhama tashbiha aw wilhu aw fawwid warum tansiha bépp texte boo xam ne gis nga ko nee na mu naan la yàlla dafa mel nii wala dafa yor benn melokaan nee na booba na ko na ko soppi maanaam interprété ko firee ko neneen nu bokkut ak noona loo ci jublu mu ne ah xanaa sellal rek borom bi tabaraka wa taala noo koy sellale borom bi moo gën a xam boppam yonent biñ ko wàccee ñépp moo leen gën a dégg arab bu alxuraan wàccee wala sunna ñëw ne borom bi tabaraka wa yor na melokaan sàngam yow nit nga ne ah lool kat su ma ne yàlla yor na ko kon maa ngi koy nuróoleeg bindeef yi kon sellal googu ak soreeleeg gi ma ko bëgg a soreeleeg bindeef yi daa war a tax ma interpréter loolu tudde ko neneen nu bokkut ak li yàlla wax ci misaal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne yanzilu rabbuna kulla laylatin ila samaai dunia borom bi tabaraka wa taala guddi gu nekk dafay wàcc ba ci asamaan si gën a jege suuf si moo may ñaan ma may ko kan moo may laaj ma jox ko kan moo may jégglu ma jéggal ko ñi ñëw ci baatu yanzilu boobu dana wàcc ñi daal jëfandikoo seeni xel ne ah leen xam ci wàcc kat mooy jóge ca palaas ba nga nekkoon ñëw ci beneen ñu ne ah, loolu daal jaaduwut ci xaq yàlla kon nuñ koy def ñu ne ah kon interpréter leen ko nuñ ko interpréter ñu ne kon dañ naan malaakam yàlla mooy wàcc waaw borom bi tabaraka wa su bëgg yonent bi akuk laa biiram ak yërmandeem ci xeet wi bañ ñu réer su fekkoon ne daa bëgg a wax ne malaakaay wàcc mënta wax ne yanzilu malaikatun min malaikati rabbina day ñëw di réeral xeet wi ne leen yanzilu rabbuna te fekk malaayika mooy wàcc ne leen yàlla mooy wàcc fekk malaaka mooy wàcc ma ne loolu erreur yu mag la yoo xam ne ci buntu tawxidu sifaat li ëpp ci jullit yi tey ci bunt boobu ci lañ tàbbi muy mboolem kuréel yi nga xam ne dañ leen di tudde moo xam mu'tazila la wala jahmiya wala ashaira wala tur wu ñu leen mën a jox taawil boobu muy interpréter sifaati borom bi tabaraka wa taala wépp woo ci xam ne seeni xel ñoom nanguwu ko ndax buñ ko xiyaasee ci nit gis ne nit moo mel noonu ñu ne kon yàlla yeyoowut loolu loolu mooy pas-pas bi ñuy dund tey foofu lan moo fi jaadu woon moo di ñu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kuy dégg arab moo la gën a dégg arab teyit lim wax du lum sos waaye lu ko borom bi wax yu la alquran ak sunna lenn lu ci ne wax yu bu jóge ci sunu borom tabaraka wa la kon bu nee borom bi tabaraka dana wàcc yow jullit bi gëmal ne dana wàcc mu des nag nan lay wàcce ci ban façon ak wàccin wa ak bu wàccee fu muy nekk nga ne ko loola sama yoon newu ci xawma ko ndax yàlla waxuma ko te gëm naa ne wut ak mbindeef dara kon ak wàcc ak wàccu mbindeef mënta bokk bu borom bi tabaraka wa taala saxalee ne moom dafa am li ñuy tudde loxo yadullahi fawqa aydihim yow jullit bi saxalal ne am na loxo waaye bul ne daanu roog loxo mbindeef ndax ni nga nangoo moom borom bi tabaraka wa am na jëmm te mbindeef yépp am jëmm ba noppi nga nangoo ne jëmmam nu doo wut ak jëmmi mbindeef nangul ne ay melokaanam itam noonu la am na ay melokaan waaye melokaan yi nu doo wut yooyu mbindeef loolu moo gën nga dàq ko ne amu ko ànd ak ne mboolem ñiy taawil ñépp ñiy jëfandikoo interprétation boobu yépp dëppoo nañ ci ne borom bi tabaraka wa taala am na jëmm pourtant nit ñi fi ngeen jaar ba nangu loolu lu tax mu leen a nangu lële ndax ku ne amul jëmm rek moom kon dàq nga wujoodam maanaam da nga ne amut kon li nga ne amul jëmm da nga ne amut kon ñoom ñépp ba noppi nangu nañ ne jëmmam lu roowut ak jëmmi mbindeef kon kay nangul ne am na loxo loxoom lu roowut bu mbindeef dana wàcc ak wàccam nu roowut ak wàccum mbindeef wa hakada kon bunt boobu ci ba nga saxalal yàlla lim saxalal boppam ba noppi nangu ne nag nu róolewu ko ak mbindeef toujours danaa di wax mbokk yi ne leen bokk ay tur taxu a bokk ay jëm bokk baatu bopp danaa ci di joxe misaal lu baree bari bopp boo waxee bopp nit am na bopp am xar am na bopp aw nag am bopp puso sax am na bopp ay mbindeef la te ñëpp ay mbindeef ngeen su fekkee wuute googu moo am ci diggante bindeef yi sunu boroom tabaraka wa taala yi naka la nag diggante alxaaliq wal maxluuq diggante ki nga xam ne moo bind kooku bu saxalee boppam melokaanam nangul ne melokaan woowu sax la waaye nuróolewu ko ak kenn loolu mooy li xew ci buntu tawxidul asmaa wa sifaat boo dikkee ba tey dangay gis ne lu bari ci nit ñi soppi nañ bunt boobu ba wut leneen loo xam ne daanaka ay yàlla nga leen di tudde ndax su fekkee ne kii boo jàqee ci moom nga jëm boo tàllalee sa loxo di ñaan sa xel day jóge ci yàlla jaar ci moom jàpp nga ne sa ñaan gi mëneesu ko nangu li fay jaarewut ci mbindeef sàngam di jekki ba mu yàgg ñi la rendilal tóor mi nàngam defal nii nga ñëw rendi jekki ba mu yàgg xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne yépp yu ñu waroon a defal yàlla la nga wëlbati ko defal loo xam ne lu di ko defal loo xam ne mbindeefum yàlla la képp ko gis liy xew lii xew ci xabru yi nga xam ne mooy xabru yi nit ñu baax ñi danga gis ne xeetu jaamu yàlla jagleel ko yàlla am na jam-jam bu rëy boo xam ne ci biir xeetu lislaam euh, jam nañ ko ko loolu su amee nga xool bunt bi ñuy tudde tawxidu rububiya nga xam ne mooy nangu ne borom bi tabaraka wa taala mooy mooy maye mooy xañe mu ci wàllu pas-pas yéefar ya nga xam ne ñoo doon dund ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax bokkaale wuñu woon moom ci bunt bi muy tawxidu rububiya wala in saaltahum man a samawati wal ard la yaquluna allah boo leen laajee ku bind asamaan ak suuf ñu ne la yàllaa ko bind wa ida rakabu rakibu fi lfulki daaw la si bu fekkee ne war nañ gaal maanaam bu leen njàqare dikkalee yàlla rek lañuy tudd yéefar yi daje woon ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu mel noonu lañ doon dund waaye tey lu bari ci ñiy dund ci biir géewub lislaam jàpp nañ ni am na mbindee fi yàlla yoo xam ne lu muy def lu ne da leen di tàggu loolu ci xeeti pas-pasi jullit yi mi ngi ci jàpp ne yii xew muy taw beeg dundug nit ñeeg seen wërsëg ak lépp doomu aadama mu doyadi mi ñu defe ne am na ci yenn pexe yum ciy def xoola yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne dañ koo yónni woon ngir tawxid bi mu ñëwee benn bis kenn ci saxaaba yi ñëw ne ko ma sha allahu wa shit di wax ak moom ba ne ko bu soobee yàlla soob la lu bari lu nit ñi di wax tey bu soobee yàlla soob yonent bi soob diw mu ne ko bu soobee yàlla soob la yonent bi alayhi salaatu wasalaam mer ne ko ajaaltani lillahi ndax danga may def nag moroomum yàlla bal ma sha allahu waxda booy wax ci coobare neel bu soobee yàlla moom dong kon kooku lañ yónni ci tawxid moo tax cheikh Mouhamed Nasiruddin al Albani rahimahullah ci téereem bi ñuy wax taxdiru saajid min itixaadi alqubuuri masaajid euh, mi ngi wax fi benn texte boo xam ne bu gudd la duñ mën a wax lépp <coughs> waaye mi ngi tudd li nga xam ne nit ñi ñu ngi koy tudd tey ci baati bokkaale yu bari yoo xam ne bu ñu xëyee di ko wax ba àgg ci ku tiit sax yàlla ak diw ngay wax nee na waaye noonu gis nañ ñoo xam ne bu ñu tiitee sax diw rek la ñuy wax far mu ne li ca gën a metti moom cheikh bi nee na mooy lu bari ci masaayix yi ak nga xam ne ñooy seeni kilifa dañuy dégg ñuy wax lu mel noonu ba noppi ñu ne ci cell mu dem ba ne loolu nag ñaari mbir rek ñoo koy waral benn nee na sëriñ ba cay def cell benn ku xamul dara la te it nag dana di am léeg-léeg am nit mbooloo mu bari topp ko te fekk bu dee diini lislaam ji moom xamu ci dara beneen bi nee na mooy koo xam ne xam na dara waaye njariñ yiy jóge ci ñooñee di ñëw ci moom moom lañ bañ mu dagg nee na ñaar yi rek ñoo fi nekk nee na xanaa ñii xamuñu ne bu fekkee yonent bi lañ gëm moom la roy nee na moo waxoon saxaabi ba ne ko bu soobee yàlla dong te bul ne bu soobee yàlla ak yow mu ne lu bare bari dañuy dégg nit kuy wax kilifa ne ko bu soobee yàlla wakkiirlu naa ci yàlla ak ci yow ñenn ñi di wax ne bu soobee yàlla soob la ñenn ñi naan nun de yow ak yàlla rek lan am nee na yooyu yépp ñi di ko dégg ci seeni nopp te waxuñu ca dara mu teg ca waaw xanaa ñiy jànguñu inna alladina yaktumuuna ma anzalna min albayinati walhuda min bacdi ma bayannahu linnaasi fi lkitab ulaika yalcanuhum allah wa yalcanuhum allaacinuun mu ne ndax sëriñ soosu dañoo jàngut loolu borom bi ne ñii xam li nekk ci téere bi ba noppi ne cel nëbb ko nee na ñooñu de yàlla rëbb na leen nit ñu baax ñi itam rëbb nañ leen kon wax dëgg yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boobu bunt moom leeral na lépp loo xam ne moom la nit ñi aajowoo ci seen tawxid ànd ak loolu nit ñi ëppal googu nga xam ne moo tàmbali woon di am ca kookee ne ko macha allahu wa shita mu yemale ko foofa téewut da nga koy gis mu dem ba weesu ko ba ci ñi ñëw gannaaw bi boroom boroom hamziya boo jàngee fa muy wax ne haadihi illati wa anta tabibi laysa yaxfa alayka fi lqalbi daau xam nga ne loolu kenn waru ko wax ku dul borom bi tabaraka wa taala mi ngi wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man day sama feebara ngi nii yaay saab docteur saa feebar yi ngi yaay saab docteur te amul benn feebar buy nekk ci xolu doomu aadama boo xam ne xamoo ko loolu xam nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu andiwu ko fi woon dikkul di gëstu li nekk ci biir xoli doomu aadama yi waaye daf fee dikkoon ngir jubbanti leen ngir baaxal leen ngir digal leen ngir tere leen waaye xam la ca xol ya kooku borom bi tabaraka wa taala rek moo ko jagoo liñ bëgg a wax foofu daal moo di buntu bunti tawxiid yi mu am yépp moo xam tawxidul asmaai wa sifaat la muy lu aju ci melokaani sun borom tabaraka wa taala wala tawxidul uluhiya muy jublu gi nga xam ne mu kàllaf yi yàlla rek lañu war a jublu ci jaamu wala tawxidul rububiya gëm gi mu kàllaf yi war a gëm ne njariñ ak lor ci seen borom dong la mën a jóge bunt boobu am na jam-jam te nag biir tawxidu rububiya day dem ba yaatoo yaatu ba dugg ci ñi yëg ne borom bi tabaraka wa taala képp moo war a tëralal nit ñi sax même ni ñuy attewoo waaye lu dul loolu tawxid day daal di am jam-jam ko tax borom bi tabaraka wa taala di wax ne alam tara ila alladina yazumuuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yataxaakamu ila altaaxuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu alcheytaanu an yudillahum dalalan baida xanaa gisoo ñi nga xam ne nee nañ wu dañoo gëm yàlla ba noppi ñiy dem ci taaxóot mu di leen atte taaxóot mooy lépp loo xam ne lu nit ki topp la tadu borom bi tabaraka wa taala nee na te dañ leen a digal ne nañ weddi taaxóot moomu nee na seytaane moo leen bëgg a réeral boo ko toppee aay yu bare bare bari la afa xukma aljahiliyati yabguun wa man axsanu min allahi xukman li qawmin yuqinuun wa man lam yaxkum bima anzala ay kafiruun ay aay yu bare bare bare yoo xam ne yii day leeral ne atteg ceddo ga bàyyi leen ko te dikk ci atteg borom bi tabaraka wa taala képp koo xam ne atte woowut li yàlla wàcce foofu nee na yéefar la fenn fi mu ne kàccoor la fi ci des mu ne tooñkat la al imam ibnu abil iz al xanafi def na foofu détail bu rafet nee na mbire ngi moo xam ne warees na koo bàyyi xel moo di ne alxukm bi gayri ma anzala allahu qad yakunu kufran yanqulu an ilmilla nee na attewoo lu bukkut ak li yàlla wàcce léeg-léeg mu nekk kéefar gu mag goo xam ne day génne nit ki lislaam wa qad yakunu maasiyatan kabiratan aw saxira nee na léeg mu doon bakkaar bu mag wala bakkaar bu ndaw wa dalika bi xasabi xaali alxaakim nee loolu mi ngi dellu ci kay atte moom nan la gise lislaam ne fa innahu in ictaqada an alxukma fa innahu in ictaqada an alxukma bima anzala allahu gayru waajib wa annahu muxayarun fiihi aw istahaana bihi maca tayaqunihi annahu xukmu llah fa hada kufrun akbar kii àttewoo leneen lu dul yàlla wàcce ne su fekkee ne dafa fas ne lii mu indi di ko attewoo moo gën alxuraan attewoo alxuraan waru ko ndax xëy na gis na lu ko gën wala gis na lu yem moom su ko neexee tànn lii su ko neexee tànn lii ànd ak xam goo xam ne xam na ko ne alxuraan mi ci yàlla la jóge nee na ki yor bi position moom kooku doonatul jullit génn na mu teg ca ne wa in i'taqada wujub alxukmi bima anzala allahu wa alimahu fi hadihi alwaqia wa adala anhu maa actirafihi bi annahu mustaxiqun lilcuquba fa hada aasin wa yusamma kufran asgar nee na su fekkee ne moom mi xam na xam na li yàlla wàcce xam na ne it moo gën a baax waaye nag jàdd na ko bi mu ko jàddee ba noppi it xam na ne moom mii njaaxum la def nee na kooku daa mooy yàlla suñ ko tuddee kéefar liñ ci jublu mooy kéefar gu ndaw maanaam kéefar gu dul génne waaye bàkkaar bu mag la nag ñetteelu melokaanam nee na wa in jahila xukma allahi fiha maa bathli juhdihi wa istifraagi wuscihi fi macrifati alxukmi wa axta'ah fa hada muxtiun lahu ajrun ala ijtihaadihi wa xata'uhu maxfuur su fekkee ne daa xamut li yàlla àtte jéem na nag def na efoor pour xam àtte bi lan la ci yàlla wax ngir mu àtte woo ko waaye juum na jéem na jéem daal ci njuumte la mujj tàbbi nee na kooku ku juum lañ koy tuddee am na yoolu effort ba mu def doon gëstu dëgg am na yool booba waaye nag njuumte la jéggal nañ ko ko kon ñetti situation la kéefër ak mooy yàlla bàkkaar bu mag ak sax faf am ab yool kon faaw ñu xàmmee loolu nga xam ne boroom xam-xam yi noonu lañ ko firee buñ dégg rek wa man lam yaxkum bi ma ansala allahu fa ulaika humul kaafiroon nga daal di ne képp ko àttewoo lu dul alxuraan rek yéefar la loolu ak taral lay daal di doon ba ëpp faaw détail boobu munu cee ñàkk faaw ñu dellu ci ki àttewoo lu dul li yàlla wàcce moom lan mooy pas-pasam am na ci ñoo xam ne bëggoon nañ lu baax bëggoon nañoo xam lu baax ba jëfe ko waaye jéem nañ mu tëleen am na ñoo xam ne xam nañ ne lii moo baax waaye am na yeneen i gàllankoor ak li ñu tudd ay doxoot yu tege ci seen kaw yoo xam ne moo tax lañ bëggoon def ñu mënuñu ko ñoo ñooñu euh, beneen situation la li gàttal gi foofu daal moo di ne pas-pas ci lislaam ngir ñu sellal ko lu aaja woo la ñu seggaat ko bu baax a baax ba lépp loo xam ne lu ci aju lu ci bokkut la ñu delloosiwaat pas-pasu lislaam ni ko alquran ak sunna jànge bu loolu jàllee ak gàttal la rek ci majaalu aqida ñu jàll ci beneen majaal ci majaalaatu tasfiya mu di majaalu sunna nabawiya sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk xam na ne dafa ñëw ñi riwaaya ko mu ànd ak ay sanat yoo xam ne dañ naan diw nee na ma diw nee na ko Abubakar nee na ko yonent bi sallallahu alayhi nee na maanaam mu doon sanat bu wér boroom xam-xame xadiis taalif nañ ci xeeti xam-xami xadiis yi loo xam ne ëpp na juróom fukki xeeti xam-xam yu bokkut kon jox nañ xadiis coono boo xam ne bu mag a mag a mag la eh, ñi taalif ci xadiis nag ñoom ñépp bokkuñu benn méthode bu ñu yoroon am na ñoo xam ne dañoo jóg rekk ngir dajale lépp loo xam ne lu am sanad la maanaam lu am chaîne ba àgg ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala sax ba àgg ci saxaaba yi léeg-léeg kon ñooñu dajale nañ ci seeni téere xadis bu wér ak xadis bu xasan ak xadis bu daif ak xadis bu mawdu maanaam xadis bu wér ak bu wérut dajale nañ ko ci seeni téere ñaareel ba mooy ñoo xam ne dañoo jóg charte ci seeni téere ne nun day liñ fas yéene génn lu wér kese lay doon ci téere xadis yi waaye nag gannaaw bi lañ sartaloon seen bopp ñi xaw koo jàdd ba tàbbal ca leneen loo xam ne lu wérut am ñoo xam ne dañoo jóg sart ne lu wér lu wér képp la ñuy génne nañ ko sarte woon it ñi defe ko noona muy lu mel ne Buxaari ak Muslim la ca tegu moo di loolu ma wax du tax ñu yedd boroom xam-xam yi nga xam ne dañoo indi ay xadis yu wér ak yu wérut li ko waral mooy dafa am benn règle boo xam ne boroom xam-xami xadis ñoo ko indi muy ki la indil xadis bi indil la sanad bi sanad bu ñu ko waxee mooy chaîne bi lay yóbbu bi lay won ki riwaaye xadis bi dañuy wax ne ki la indil loolu jaanam wàcc na kooku jaanam wàcc na ida saaqa alxadisa bi sanadihi faqad bariat ohdatu su fekkee ne indil na la xadis bi mu ànd akub sanadam kooku jaanam wàcc na yoo xam ne man asnada lak faqad axaalak ki la jox sanad kooku yebal na la neel demal seetali sa bopp ginnaaw rijaal yi ci xadis bi yépp a ngi nii diw diw diw diw diw te am na téere yoo xam ne boo ci delloo kenn ku ne mën ngaa daal di xam kooku mën nañoo sukkandiku ci moom wala déet kon léegi yaa ci des ngir bañ nag dara faat moo taxoon lépp dañ koy dajale ginnaaw amuñu waxtu segg ñi boole lépp te jàppoon nañ ni ñi ñuy waxal ci seen jamono ku xool sanad bu wérul dangay ngay liir ci kaw rek xam ne bii wérul waaye nag dem nañ ba jëmmi jamono nit ñi melatuñ noonu bari ne waxuma la kuy xoolub sanad sax ndax wér na am déet waaye am na ñoo xam ne defe nañ ne luñ bind ci téere lu ne rek wér na su wérul woon kenn du ko bind ci téere bi pas-pas boobu lañu yor beneen tomb moo di képp ku yëngu ci majaalu xam-xam xam nga ne day biir xadiis yi ak téere xadiis yi li ci dugg te wérul bari na lool ñi ci loro itam maanaam néew na sax ñu ci mucc waarekat yeeg bindkat yeeg conférencier yeeg mboolem askan wi néew na ci ñu mucc ci jëfe ay xadis yu wérut wala ñu di ko waxtaane te xam ngeen ne <coughs> xadis bu wérut moom te tasaare ko musiba bala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Euh, képp koo xam ne waxal na ma lu ma waxut falyatabawa maqaadahu min an naar waliyaasu billah képp koo xam ne waxal na ma lu ma waxut nee na sooy ba mu jëlub seesam léegi ca sawara kon waxal ko lu mu waxut kooku musiba la lu bare bari da ngay dégg nit ñoo xam ne seen waxtaan wa ñuy def ci benn xadis lañ ko teg wala luñ tuddeb xadis waxtaan ba jeexal lépp kooko mooy tabax ba far loola dub xadis nag loolu day nuroog kuy bind ci kawum ndox li nga def lépp ba àggal zéro la yëmut ci zéro la waaye ay bàkkaar yi kese nga gàddu ndax li nga ne yonent bi moo ko waxtu waxu ko kon mbira ngoog moo xam ne mu aja teey la ñaata yoon ngeen dégg ñuy faral di wax te it nag mbokk yi jëfandikoo xadiis bu wérut li ci ne ci xeeti coono suñ jëloon rek misaalum xadis bi ñuy wax bi wax naan képp koo xam ne am na ñeen fukki julli yu tegaloo ci Madina képp ku fa am ñeen fukki julli yu tegaloo jéggal nañ la say bàkkaar xadis boobu li ci xujaaj yi di daj pour am ñeent fukki julli ci madina ba far am na ci ñoo xam ne day mel ne moo leen gën a itteel aj gi leen taxoon a jóg ñu ne faw ñu am fi une semaine pour man fee julli ñeent fukki julli loolu lu cay tegu mooy da nga fay lu gën a cher ndax da nga fa gën a yàgg beneen bi jamono yi nga fa nekk yemoo ci di julli waaye yaa ci biir marché bi di jënd di dugg ak a génn ay lora la ciy dal ba nga xam ne day mujj sax faf ya sharia doon tere da nga ci dugg léeg-léeg nga gis ku ku aj ba noppi di yalwaan fekk yalwaan ma muy def la ko ko teg mooy fan yam am fan yu yàgg yam am màddina ngir bëgg faa julli ñeent fukki julli te xa lañ lañ tudde ne xadiis la ba di ko jëfe ci loolu du xadis bu wér faf nga gis koo xam ne waxuma la sax yalwaan waaye day dem bay sàcc di tafu ngir bëgg am lu mu dunde ah li wax dëgg yàlla bu fekkee ci xadis bu wérut la tegu nit ki dem ba daj coono bu mel noonu ba dugg ci lu mu mënul ba àgg ci di sàcc nag faf kooka musiba la ma ne ñaata yoon lan dégg kuy waxtaan moo xam ci rajo la wala kuy conférence di baamtu aarifuuni qabla an taabuduuni fa in lam taarifuuni fa kayfa taabuduun léeg-léeg sax ci xutba bu àjjuma nga koy dégg xam xam leen ma door maa jaamu su ngeen ma xamul nu ngeen may jaamoo te nag ñuy wax aarifuuni jooju leneen lañ ci jublu xam leen ma man yàlla door maa jaamu su ngeen ma xamul nu ngeen may jaamoo yeneen xeeti xam-xam lañ ci jublu yoo xam ne buñ ne aarifiina billah lañ ci jublu bokkut ak jàng diine yàlla xam ko ànd ak ne xadis boobu Cheikh Nasruddin Albani nee na baatil la wala yujadu musnadan xadis la boo xam ne amul benn sanat ci téere xadis yi faf kon du xadis ñaata yoon ngay dégg waxtaankat bu dikk ba si ne xubbul watani min al iman ah bëgg sam réew ci ngëm yàlla la bokk dëgg la bëgg sam réew moom kooku kooku fitra la yàlla daf ko bindaale nit ki mooy fi mu juddoo aada woo fa cosaanoo fa miine fa doon fa gone kooku yàlla da koo mooñaale ne day bëgg foofa jamono yone xel maa nga fay dellu moo xam ab jullit la moo xam leneen la kon lépp loo xam ne lépp loo xam ne nit ki yàlla da koo mooñaale bëgg-bëggam kooku duñ wax ne kooku ci imaan la bokk du ca bokk ndax ñépp a ko bokk këdul jullit sax noonu la mel kon xadis bi mat matn bi baaxut mu ngi mel ne rek nga ne bëgg lekk ci imaan la bokk ku yàlla bind ku nekk da ngay lekk kon yàlla du jël bëgg ak lekk boole ko ci ngëm yàlla déedéet waaye ci bindub doomu aadama ci la bokk faf xadis ba ci boppam wérut ñaata yoon ngay dégg kuy wax naan utlubul ilma walaw bis siin sàkku ji leen xam-xam donte da ngeen di dem ba siin léegi la nga dégg ku ci tegtaloo pour wane ne euh, yonent bi dafa woote ci ne xam-xamu sharia rek mooy xam-xam ndax jamono yooyu siin lislaam àggagu fa kon liñ ci jublu mooy modernité da ngaa war a dem jàngi technologie jàngi nangam jàngi nangam ndax jamono yooyu siin xam-xamu l'islam nekku fi kon yonent bi woote na ci ne nañ jàngi leneen lu dul lislaam lislaam li ci woote ci ci ci sàkku xeeti xam-xam yuy jëriñ doomu aadama ci àddunaam ak àllaaxiraam aaje woowul ñiy tër ab xadis boo xam ne bu wérut la di ko sukkandikoo ndax xadis boobu xadis mawdu la maanaam wérut kon lislaam am na yeneeni soññee yoo xam ne moo soññ doomu aadama ci ñu jàng seen àdduna ba xam ko dund ko dundiin woo xam ne mooy bi lislaam tër waaye ñu sàkku seen àllaaxira itam ba bu ëllëgee mu mën leen a jëriñ ñaata yoon ngay xadis yu bare bari yoo xam ne suñ ko toppee wax dëgg yàlla daanaka doy na waxtaanu boppam addabani rabbi fa ahsana ta'dibi boo xadis maanaam wér na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne moo wax ne yàlla yar na ma rafetal sama yar dëgg la yàlla yar na ko rafetal ab yaram waaye nag loolu du xadis xadis yu bare bare bari la yoo xam ne mu ngi ci làmmiñi nit ñi tey eh, ñi di ko wax di ko jëfandikoo tam doon lu aaje leeral liñ jubli ci loolu mooy nu yëg jëmmi xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aajana tasfiya maanaam segg ngir xam la ca wér ak la ca wérut segg googu ma ne suñ ko defee fexe ba suñ dundug lislaam sun dundug sunna dañ koy teg ci sunna bu wér am na yu bari yoo xam ne danañu ko jural ci ay njariñ bi ci jëkk moo di ne bi tasfiyati riwayat yaslum lil abdi aslu littibaa wa yajtanibu gawail al bidaa su fekkee nit ki taxawlu na fas yéene segg xadis yi muy jëfe wala mu di ko fas dana ko jul njari jural njariñul mu mën a roy yonent bi sallallahu alayhi wa ndax ci lu wér nga koy royee dana la jural njariñul mën a mucc ci biddaa ndax danga xam li wér nga mën koo jëfe la wérul nga mën koo bàyyi loolu moo mooy njariñu segg gi beneen bi moo di at tahdir min ashirk wa ma daxala ala ad min muxdasatin shawahat jamaalahu wa kaddarat safaah dana mën a wattandikuloo nit ki lépp loo xam ne xeetu bokkaale la ndax xadis yi wérut kat yuy woote jëme ci lu ne ngi ci yuy woote jëme ci lu nee ngi ci ba ci bokkaale sax nag kon segg ko ba lépp lu wérut nga teg ko fële mën a jëfe li nga xam ne mooy li wér dana musal nit ki ci mën a mucc ci bokkaale ak ñaaw-ñaaw yi nga xam ne dafa salteel lislaam boo ko dee xool ci kaw te fekk ne l'islam diini ju